Euh, ñu mel ni la mëna waxal ngi leen di sant bu baax di leen ndokkeel ci loolu ñaan suñu borom defal ñu yow defal la ko defal ñu tawfiq defal la ko euh, malheureusement li ma am ci waxtu ndax damay defi bayan ci benn juma euh, sama waxtu di na nga ne da ngay julli ji takkusaan léegi du ma may ma tontu li nga indi lepp ndax li nga indi dafa bari ma xol dañ ci indi xawna jégué ñaata audio daan ñaar ñott ñent juroom juroomi audio yoo xam ne nii yenn yi quatre mille yenn huit yenn cinq dana jafe trop ma mën a taxaw tontu ndax su boobaa kon du ma defi euh, waxtaan wax waaye dina ñëw rek ci audio bu njëkk bi nga xam ne moom nga ñëw di leeral sama wax bàyyi ci loo waroon wax andi ci lu ma waxut loola la bëgg a leeral ba noppi sa audio yi ci des nag incha allah dinaa ko tontu su ma féexee sa moo fexe ci bis bi xanaa damay ñaan rek mbokk mi nga xam ne nii mooy mbokk yi nga xam ne ñoo am autorité ñoo am euh, sañ-sañu tëj groupe bi ñu dimbale na ngir yàlla bala ñu ko tëj mooy ma tontu Mouhamadul Amin nii ndax kilifa bu waxee yow bokk na ci xàqam nga tontu ko euh, ma ma gis gi nag mën naa ci mën naa ci équipé mais bu ma féexee dina dugg euh, li ma wax te mooy taxi bii nii dama ko ci sant kon nag wëlbati ko wax ko ne ko ne ko dégg naa ngay wax di leeral ne masala dafa am masala masail yoo xam ne nii ci diine kenn du ca def ittihaad bi maanaam kenn du ca góorgóorlu nañu ko santaane rek noona rek lañ koy defee mu am ay masail yoo xam ne ittihaadiya la man des na ca def ittihaad ke ca def ittihaad mën na am isaaba am ñaari yoon mën naa juum am benn yoon ci biir masail ijtihaadiya yooyu mu joxe ci misaal daal ne am na ci yoo xam ne dugg ci maslaha mursala may fàttali mbokk yi ci ne li ëpp ci mbokk yi suñ doon keppee ci benn barab dañuy daw ci dugg ci maslaha mursala waaye loolu incha allah danañ ci leeral lañ ca xam mu ne nodduk ajjuma bu ñaareel googu kat amut woon waaye dañ koo indi waaye kenn du ko dugal ci biddaa dañ koo indi <laughs> dañ koo indi waaye kenn du ko dugal ci biddaa ndax dañoo gis ni nit ñi dañ ko soxla ndax eh, ni nit ñi toll ci jamono maanaam ni yaatuwaay beeg yu mel noonu dañ ko soxla muy dëgg wér kenn bisub ajjuma kon kenn du ko dugg dugal ci biddaa bal dafay dugg ci maslaha mursala eh, ci biir leeralam eh, ma leeral bu baax ci wax noddu googu ma laaj ko ne ko léegi waaw maslaha mursala moom mën nga ñu ko leerala ak itam fan la ci nodd di dugge mu daal indi ay leeralam wax euh, lam ca xam lépp ci biir lam ca leeral nag daf caa daf caa dafay daf caa tugga tuddaale ne mursala mooy loo xam ne ni saari am bi tënk ko dañ ko boyal ma ñëw ne ko waaw su fekkee ne mbir yi noonu la demee nga xam ne laal mbir yi moom buñ demee ba charia gis ne nit ñi aaji woon nañu li mbokk aaji woon na nangam lañ andi day dugg ci maslaha musala waaye kenn du ko dugal ci biddaa doonte loolu mu wax noonu euh, da ca am wax joxe day këppwaat ci kawam ndax boo ne nit ñi soxaloo nañ ko comme niñ soxal woon na dug ñaareel ga mooy mu dugg ci maslaha waaye kenn du ko boole ci biddaa waaye yeneen yi ñëwaat yëpp na te jubbu leen moom dañ koy dugal ci cadre bay ba kenn du ko dugal ci loolu laaj yi taxaw ci suñu kanam mooy l'islam du soppi ko mu koy saa su ne mën a méngoo ak jamono Euh, ci kaw loolu ñun ñëpp dëppoo nañ ci ne biddaa lu bon la dañ ko war a moytu waaye fi wute gi amee nag mooy ndax biddaa bu rafet am na ak biddaa bu ñaaw am na am na lu mu wax nag ne askan wi imam malik lépp lu sax ne biddaa bi lépp loo xam ne dafa sax ne biddaa la lépp loo xam ne dafa sax ne le biddaa la loolu ñu war a moytu la mais tabjix gi dafa am ay dawaabit yuy daje yoo xam ne ni ci la ñu sukkandiku te loola suñ même seen su yox yi ñuy sukkandiku sax tudd nañ ko dawaa bi dee mooy dajee ñu door a wax ne lii bi daal waaye du caagi ne ku ku neex da taxaw rek daal di lii bi daal ma ne ko nag comme léegi aajatun aajo bu ñu aajowoo mbir loola dafay dugg ci maslaha mursal wala lan moo kon waral ñenn ci ñoom ñu am yenn masala yoo xam ne am na lu ko lëkkale ak masala mi ngir niñ nañ ko woo ñu taxaw di ko bi daal joxe ci misaal al ixtifaalu bil mawlid ndax kat ni nit ñi aajo woon noddu ngir bari doomi adama ya ak jamono ni mu soppi ko noona leen nit ñi bu ñu wàccee yoon ku leen di tegaat ci yoon te dajale leen fàttali leen dundug sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu dong mooy moo mooy gàmm ndax surtout nag bu nekk ci jamono joo xam ne nii ñi wàcc yoon dañoo bari lool fàttaliwaat leen dundug yonent bi alayhi salaam loola jëriñul kese moo ca nekk daan ko nag jëmmi gàmm ci boppam weesuwut loolu rawatina nag bu fekkee dafa am cosaan ndax ñiy wax ak ak ak ak maye ko bul taxaw mukk naan amutoon ca alquranu mufaddala al ula bal ñi koy daganal am na fu ñu koy dugal ndax am na ci loo xam ne ni amoon na waaye amutoon tur wuñ ko tudde te loolu day faral di am ci diine nit ñi mën nañoo def nangam ba mënu ko dugal ci benn bunt bu buntu budul buntu booba doonte amutoon tur tudduwuñ ko woon loola waaye ñi koy tafsil di ko cosaan dañ koy delloo ca loola te ñi koy taasi di ko di ko cosaanal nag duñ n'importe qui ay borom yi xam-xam loo xam ne kenn du leen lëkkale suñu ñi nga xam ne ñun ay gëstukat dong lañu waaw te danañ andi nag ci ay ak suyux yi ñi nga xam ne ñoo ñoo wax dagana ak ko teg dana ko indi incha allah bu ma féexee nekkuñu lu ñuy wax di sànni nii rek ñay wax du ay n'importe qui fañ koy dugal it fa la ñuy wute ñi taxaw ne du fi dugg ñu ne dana fa dugg loolu masalatu xilaaf la masalatu xilaaf nag doo ci xam lu mbooloo mépp benn ko côté naan moom dong lañ war a topp ma ñëwaat ci biir audio Euh, la ci desaat mooy lan mooy aaya bi nga xam ne nii boo demee ci ibnu abbas am na ci qul bi fadlillahi bi rahmati wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu boobu noonu ma ne ko ixtifaal weesuwul alfarax bi miilaadi sayyidil anbiya alayhi salaatu wassalaam loolu weesuwul loolu donc mooy mooy mooy mooy mooy mooy gàmmu nga taxaw ne léegi loolu dañ koy tere ngir léegi day dugg ci cadre bi boole mboolem ulama yi nga xam ne ñoo ko may tey doon ay cadre ñenn ñi nag expense sax nag nga ne ñoom ñëpp ci génn kàmm nga leen dugal dañoo réer bal ñi ma sukkandiku ñu nekk sumay suyox ñoo ñoo nekk ci dëgg te gàmm weesuwul muhaadara sanawiya boo xam ne dafa am popularité ñu daje ñu leen di fàttali dund sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbooloon fu ñu daje daañ lekk daañ naan loolu moo andi lañ fay lañ fay rey waaye weesuwul loolu bu fekkee ne nag lañ la ñuy rax ca biir te bokku ca loola tax ñu koy tere loola mënees na ko tere ngir saddal li dara waaye nag bu duggal ko ci biir cadre dañ koy tere loola doonut loo xam ne nii lu xel mën a nangu la euh, rawatina nag bu fekkee ne ña koy saxal ay ulama yoo xam ne nii mawsuquuna la te loolu dañ ko indi ci kanam incha allahu taala kon sama texte bi li mu indi lii laa bind ci ci di ko ci laaj te bi mu ñëwee leeralu ma daa dugg directement ci cadre tontu ma dafa dugg direct ci cadre bidda andi fa wax yo xamne moy wax ñi koy dàq rek nag mbolem lim ci sant lépp andi ko boo demee ci adillatul euh munkirina adillatul munkirina moy ñi nga xamne ñoy ñooy teg yi nga xamne ne ñi ñiy wedd bidda mom lañ andi mom la fi muhammadul Amin jom ñi sard wa bil muqabil amna adilla yo xamne moy al qa'ilina bi jawaz al ihtifal loolu incha allahu taala ak suyoox ya ko andi ak ulama ya andi buñ féexee dañ ko andi waaw bu ko defee incha allah kon man loolu la am ci waxtu nag kon ndax dama war a di waxtu bu ñëwee nag doo ko war a doo ko tontu ndax tontu gu ma ko andi na lu mu fi andi incha allah loolu des na ko tontu des na ko tontu incha allah benn par benn ndax audio yi dafa gudd. yan may ma may ñaan rek ñu bañ a ubbi tëj la groupe. bismillahi arrahmani arrahim. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashraf al anbiyai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki wajaadilhum billati ahsan ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ba di leen gërëm di sant mbokk mi nga xam ne moom laa seqal waxtaan wi nii di mu Cheikh Mouhamadul Amine Diop di ko sant bu baax ci leeral yi nga xam ne leeral yu am solo la tam jox ñu ko léegi ci biir leeral yi nag ma am cee gis-gis am cee taxaw seetlu yoo xam ne moom laa bëgg indi léegi ci njëlbeen ma wax ne li may wax nii lenn loo xam ne ci Abdul Ahad la jóge amu ci alors dama sukkandiku ci wax yi ñi nga xam ne ñoo daganal ñoo ñoo ñoo ñu wax yi ñuy daganal gàmm ak fan ko dugal benn ñaareel ba it waxee ne bidaa amul benn biddaa bu rafet yépp a ñaaw loolu xam la waaye ma gis bil muqaabil wax ju wuteeg moom joo xam ne ni ci ñamu jóge du ay n'importe qui dana leer léegi lolo tax ma bëgg nit ña bañ cee trompé wu ne loolu waxi benn école la waxi benn kuréel la waaye du wax joo xam ne dañoo war a yan diine jëpp ci loolu euh, ci biir waxam ji nag am na lu mu askan ni Malik moo ko wax waaye nag bu fekkee wax ji dañ ko bàyyi ala umumihi kon jàppal ne mboolem kilifa yi nga xam ñoo fi indi ta saxal da taqsim ku noonu dañuy dañu leen da dugal ci biir euh, gambo ba te loolu nag wax la joo xam ne ju garaaw a nañu xool te ubbi suñuy bët di xool Euh, li may njëkk a wax Mouhamadul Amin bu ñu xoolee biddaa indi ahli sunnati wal jamaa ci mbooloo ma nga xam ne jàpp nañu ñoom ay sukkandikukaay lañu biddaa dañ koo séddale def ko ñaari xaaj loolu pour mu leer maanaam jëmmi biddaa ci boppam faw ñu xam mooy lan moom ci boppam euh, faw ñu xam it xadiisu kullu bidaatin dalaala borom xam-xam buñ koy leeral dañ naan amun maxsuus amun maxsuus lan moy am maxsuus dana leer ci kanam incha allah bidaa ñu xam moy lan dana bax ndax moy tax ñu mëna dégg li ñi wax bida dañ ko tarif lughatan ni ma ma uhdisa ala ghayri misalin sabiq moy lo xamne ni dañ ko sos muy doog a am mu ne jitu bi amrin badiin ay muhdathin ajibin lam yu'raf qabl qabl dalik manam xamuñu ko won njëkk loolu loy firi loolu lay firi luxatan bu de ci sharia moy al muhdath alladhi lam yanuss alayhi al quran wala jaa fi sunna moy lo xamne luñu sos la ta amul texte bu rot ci qur'an bu ko andi amul texte bo xam dafa rot ci sunna bu ko andi comme lo niko al alim al lughawi al mashhur al fayumi ni ko indi ci terem bi ñuy wax al misbahul munir نيكي نونيت الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي نيم كو اندي سي تيرم بي ني وقت دي معروف بو نيو سي ميم سي معنى لغوي لغوي بنوبي بل بلغي بو ديبي المصباح المنير دا نغي غيس سي باج 138 ابدا الله تعالى الخلق ابداعا ما خلقهم على لا على مثال ما يلا مولين فنت بني ابدعت ولا ابدعته ما استخرجته واحدثه موي لو خا دنجو سوس كون بدعه moo tax ñu ne ci xaala boo xam ne al muxaalifa bu amee dañ naan loolu bidaa la ismun min al ibtida pour loo bàyyi ko ci ibtida comme rifaa ni mu bàyyi ko ci irtifa mais li ëpp ci luñ koy jëfandikoo dañ naan naqsun la fi diin aw ziyaada mooy loo ak wàññiku ci diin de wala ak dolli mu teg ne nag qad yakunu baaduha gayra makruh fa yusamma bidaa mubaaha maanaam lenn ci mën naa nekk loo xam ne duñ ko sib tudde ko bidaa mubaaha te loolu mooy loo xam ne shahida li jinsihi aslun fi shara shahida li jinsihi aslun fi shara maanaam jëmmi moom ci boppam dafa am cëslaay lu leer ci sharia aw iqtadathu comme lam doon wax keroog moom Mouhamad Amin maslahatun yandafiu biha mafsada aw iqtadathu maslahatun yandafiu biha mafsada mooy wala mu doon loo xam ne nii bu ñu ko defee intérêt da cay juddoo boo xam ne ak yàqute lay dàq kon loolu kenn du wax ne dañ kenn du ko wasfu ci ci ci bidda atul dalala bi danañ bidda atul mubaaxa ngir jub bañ gudd wala maa wi nag seeni wax mu ne biddaa ci bopp nañ koo séddale def ko ay xaaj mu jël ci penn kenn par kenn bala ñuy ñëw ci ay ma yam doon wax naan ci ci masahibul arbaa yam doon wax naan ñoom ñëpp wax juju waxuñ ko kenn waxu ci kenn ci ñoom ñaar wax juju ñëkkul wax joo xam ne musallam la te dana leer léegi incha allah بون ديمي ابن العربي لوم واخ ليست البدعه والمحدث مذمومين للفظ بدعه ومحدث ولا معنيهما وانما يضم من البدعه ما يخالف السنه ويضم من المحدثات ما دعا الى الضلال اي واخ دي مولر نينا بدعه اك محدث بيتاغي نيو نيب ري دا نين بولي نونو غاني لين خاص لين ساتني باخو ساني تي كوبلو ban lañuy ñuy lañuy la ci bida moy lu wuteeg sunna lañuy ñuy ci muhaddasat moy lo xam fay wote jëm ci dalaat loolu waxi ibnu ibnu arabi ibnu ibnul arabi waxuma ibnu ibnu arabi buñ démé ci al imam an nawawi am na ma fii ci téeram buñ wax tahdibul asma wal lughat dañ ci fekk lo xam dafa wax ne al bid'atu bi kasri al ba'i fi shar'i hiya ihdaasu ma lam yakun fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabihah mu ne bidaa ci kasar ak baaji ci sariya mooy sos loo xam ne xamuñu ko jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag dafa seetlu def ay xaaj am na bu rafet am na bu bon ko mu ne qaala al imaamu al cheikh al mujma ala imamatihi wa jalalatihi ba pare su ci waxi nawawi al mujma على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراءته أبو محمد عبد السلام ابن عبد أبو أبو محمد عبد العزيز ابن عبد السلام رحمه الله وهنا muy kilifa gu mag goo xam ne nii nangul nañ ko imaamam nangul nañ ko ak màggaayam nang ko nangul nañ ko ne ku am doole la ci wàllu xam-xam ku foor lay teg wax na ci mujjug téere ndax taqsim boobu ñu ngi ko déggee ci hadisul buxaari ak muslim ñu jële ko ci aïcha radiallahu anha mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu ma laysa minhu fa huwa radd te ñi jàng lu xam nañ xam nañ ibara boobu muslim it solo na ci nafs beneen nafs la ko solo moom dane man amila amalan laysa alayhi amruna fa warad kon yonent bi jàngale fi fa afhama rasulullah toujours ci ci leer lu borom xam bi fa afhama rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi qawlihi ma laysa minhu wax gi mu wax ma laysa minhu da ciy dégle ne anna al muhaddasa innama yakunu raddan ay mardudan ida kaana ala xilaafi sharia mooy bu jëbo bu fekkee ne dafa wuteeg sharia waaye wa anna al muhaddasa al muwafiq li sharia laysa mardudan loolu lañ dégg ci wax te loolu déggéen la boo xam ne nii mu'tabar la mu'taraf la maqbul la indal ulama nit na mën na ko weddi dàq ko ngir ak parparloo mu ne ba tey ba tey mën na su ko déggee ba tey mimma rawahu muslim fi sahihi min hadisi jarir ibn abdullahi albajali radiallahu anhu mu ne qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sanna fi lislami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min gayri an yanqusa min ujurihim min gayri an yunqasa min ujurihim shay ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء comme من ñëwee ci lafzu jarir boobu képp ku sos ci lislaam bi loo xam ne sunna xasana la ab dana ci amub yool waaye képp ku ko roy ca loolee def ko ginnaaw it dana am ab ab yool te yool ba muy am du سين ci yoolub ka ko defoon dara du wàññi ma xam dafa dafa ci l'islam bi lo xam ne lu ñaaw la bàkkaar ba dana ko dana ko topp waaye bàkkaar bu ñu def loola ñëpp ci naaw daf koy topp ci lu du muy wàññi seeni bàkkaar dara boo ñëwee ci saxihu Buxaari ci kitaabu salaat tarawih euh, muy muy muy muy muy tekkale ne mooy euh, bu bu njëkk dañ daan julli julli tarawih ji nga xam ne yonent bi muy dem ni mu ko bàyyee daf ko bàyyi nit ñi noonu lañ ko doon di daw ndajaloo ibnu xaafis ibnu xajar wax na ne ala dañoo mooy ibnu comme ibnu wax ne fi rasulullahi صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك قال الحافظ ابن حجر أي على ترك الجماعة ويدون كرجلو في التراويح وقال ثم قال ابن الشهاب في تتمة كلامه بمكوي مسلم ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر نون لم بيرمان يكون في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنجل بين خلاف عمر نون لم يرون دون بجلو لكن كي ليرال بو نيمي سي بخاري باتاي ngir motli hadith bubu ñu jël ci ibn abdul qari qa an annahu ibn abdul qari qala ibn abdul qari annahu qala kharajtu ma umar ibn al khattab dama génn ànd ak umar ibn alxataab radiallahu anhu laylata min rama fi fi ramadan génn guddi ci ramadan ila al masjid bu ñëwee mu gis nit ñi fa idan nas naasu al mutafarriqun nit ñi taq taqaliko kii mi ngi julli mom dong ke di julli fe ke di julli fe ke di julli umar dame waaw lii moom buñ ko dajaloon ñu def mbooloo ñu ñu topp ñu topp ci ginnaaw kenn koy jàng moom dana gën a rafet mu dogu ci dajale leen ci Ubay ibnu Kaab nee na ma ñëwaat ma génnaata moom gënoon guddi nit ñi di julli benn imam di leen jiite di jàng Omar daal ne ni am na al bidaatu haadihi waaw bu demee ci boo ci mu waxtaan ak moom lafzu ni am bi da ànd ak ni amatil bidaatu haadihi la la andi kon biddaa bu rafet ak biddaa bu bu ñaaw borom xam-xam dañ ko saxal ci seen bir leeg nak ñu andi la ne xadis yonent bi waxoon na ci xadis boo xam sallallahu alayhi wasallam ñu ko jële ci abu dawud an il irbat ibn sariya mun wa iyyakum wa muhdathati al umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala muy muy hadith boobu ku kuma xal sallallahu alayhi wasallam sallam bu fekkee ne xadis boobu bëgg li ñu bëgg andi lay toog ci ne kon lay kullu muhdath la wax kon dara du ci génn dalal liñ koy tontu mooy xadis boobu lafsuhu am ni ko borom xam yi leerale ñi koy radd dañ ne bi lafsu ñi ñiy radd ñi bëgg a sukkandiku ci wax ju ci pour bëgg a dàq euh, taqsimu bidaa ñu dañu leen xadis bi lafs bi am la waaye ma annahu maxsus bi dalil al ahadis as-sabiq dikrum ñu sukkandiku nga xam ne jot nañ ko tudd tam yeesu kon li yonent bi namm ko alsalasam mooy loo xam dañ ko sos tam wuteeg alquran ak sunna wuteeg ijma wuteeg asax amma loo xam ne dafa ñëw nag nga xam ne kon loolu dañ koy dañ koy tafsir كن بدعة منقسمة إلى إلى الأحكام الخمسة من الواجب والمندوب والمبوع والمباح والمكروه والحرام كم يكون علماء المذاهب الأربعة ليرة له كم من دخل دقن لولا ما عندي كي لين كي يوم كي يوم خمسة مذاهب لين بق تعندي كي تقسيدي ndax mbir mi mom buñ doon ay gono yi nobatu ñun rek daal di wax ni ball jall waye ñun dañuy gëss dañuy dañuy andi bo démé ci mazhab bi ñu al mazhabul mu nga xam ne moom mooy imam abu xanifa nga mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy doyen mooy mooy mag mi mooy kilifa bi wa malikun wa ahmadun wa shafii abu xanifata al imamu tabii ala huda min rabbihim wa rahma wal ixtilaafu nicmatu lil umma lil umma kon imaamu abu xanifa ci mazhabam danañ ci fekk ñoo xam ne taqsim boobu lañ gis jëlal al cheikh ibnu abidin al xanafi ci xaashiya xaashiyam ba wax na ne فقد تكون البدعة واجبة كنسب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة waaw bu ñu fi nekk bu ñu fi nekk mukk naan ay maslaha mursala nag li ñu indi naan nañ indi texte ba borom xam indi ko noonu loolu la ñu indi mu ne bidaa mën naa nekk waajiba comme samp ay adilla ngir mën a radd ñi nga xam ne nii ay firnde yoo xam ne dañ koy indi ngir radd ñi nga xam ne firaqu daal la ak taallumi nahwi al mufli kitaabu sunna dégg jàngi naxu ndax da lay day tax nga mën ci dégg alquran ak sunna mën naa nekk man duuba it كإحداث النحو نحو رباط ومدرسة كم سوس من الجاك أولي دم كاي أكبر بين جاك بوهان إنكو دف بوهان نخمن يكون جمعنا يجيكه ما أنا نك مكروه كم كزخرفة المساجد نقول لي يوجد تكسن بيني مكالمة كزخرفة المساجد كم من كود نحن من يبصر لي يوح بدعاء بين وقت لون تبدو بدعاء مكروه لا تبدو جاك جلهم جسكو فما ينيني رخت جاك جي جي كوجلسا كلام ما نك جرافة رخت ويا دو خام بنا كجاك جي لول بدعاء مكروه لا mën na nekk mubaaxa comme di xaw a tawasson ci ay lekk yu neex ak ay naan yu neex yu ak yére kooku waxi ibnu abi diine ci xanafi la boo tey ci ba tey mazhab xanafi ba tey boo demee ci badru diine la nii ci sarxu sahih al sahih bukhari ba mi ba muy leeral waxi omar ibnul xataab ci ni amatil bidaatu bi nga xam ne imam omar dajaleen mboolem ci salatu tarawih ci ci benn benn xaar yi di leen jiite fekk ba najul daan ne dañoo nekkoon ay mbooloo yu taqali ko mu wax ne kon bidaa fi asli ihdaasu amrin lam yakun fi zamani rasulillah mooy sos loo xam nekk jamono yëpp sos waaye summal bidaa ba ala naw in mu teg ci ne moom imam boobu badru diin waaye ni mu ne bidaa dafa nekk ñaari xeet in kaanat mimma tandaraju taxta mustahsanin fekkee dafay dugg ci loolu luñ rafetlu ci sare fay bidaatun hasana wa in kaanat mimma yandaraju taxta mustaqbahin ah fi charin fay bidaatun mustaqbaha kon nga gis ne seen wax yi ixtilaaf ji ixtilaafu tanawoo la waaye daanaka wax yi benn lay doon buñ demee ci mazhab malik bii nga xam moom la waxoon ci wax ci bëccëg mazhab malik ñu dem ci benn ay ma ci ay ma yi bokk ci mazhab malik muhammad ibnu muhammad az-zarqani al-maliki bi muy sharh muwatta fi muy leeral waxi omar ibnu xatab radiyallahu anhu ci ni amata bidaa hadi fa sammaha bidaa mu ne mu ne bi ñu koy Muhammad dafa wax ne fa sammaha bid'a li anna sallallahu alayhi wasallam lam yasun lam yasunna ismaalaha da ko tudde bid'a ndax yonent bi sunna bu ñu dajaloo wala kaana fi zamani siddiq nekkutoon jamonoy Abubakar siddiq kon wa hiya lughatan ma uhdisa ala ghayri misalin sabiq kon boo xoolee day mel amutoon wa tutlaqu shar'an ala muqabili sunna bu dee ci sare mooy loo xam ne lu bokkut sunna rek waaye maa lam yakun fi ahdi fi ahdi sallallahu alayhi wa sallam mu ne na suma tanqasimu ila al ahkami al xamsa mi ngoog waaye ginnaaw bi daal séddu ko nag jëm ci ni ñu ko waxee waa ji ba mag ramadan ba mu jeex ba tey ci mazhab maliki bari boo demee al cheikh ahmad ibnu yahya al maliki ci téeréem bi ñëw al mi'yar na doon ci teg nas boo xam ne dafa wax ne nas boo xam ne dafa wax ne waa asxaabu naa doonte suñu àndoona doonte dëppoo nañ ci wedd bi daa yépp bi fil jumla fa taxqiqul xaq indahum annaha xamsatu aqsam gis nga loolu wax reconnaître nañ ci ñi nangul na ñeene mais ñu yëpp bontu donte dëppoo nañ ci ne bidaa moom yëpp dañ ko weddi fil jumla waaye buñ taaqiq li bo gëstoo mi def sa investigation dëgg-dëgg lam ñu jox mooy ñet juróomi xaj la mu tudd aqsaam yi nga mooy juróomi xaj ñu waxoon ak am si ay misal ci ala kulli qismin summa qaal fal xaqu fil bida ida uridat an tuurada ala qawaid char ayu lqawaid iqtadatha walxiqat biha ñu ngoog dañ koy yëg ci qawaid char al qawaid bu ko mën a yóbbaale rek boobu yóbbaale ko lolu kon man doyna seuk nak ci ne kon bida ñi dàq ak taqsimam xamna naa buñ sukkandikoo ci ay ulama yi ba wax ne bida yëpp bon ay ulama ngi yo xamne ni kat buñ n'importe kii wax deug yàlla euh doyna seuk ci wone ne kon bi kullu bid'atin dalala boobu min al ammi al maxsuus comme ni ko ay mayu leerale ridwanullahi taala alayhim ñe mazhabu shafii yi nañ ci dem ay mo shafii radiyallahu anhu sax mom wax nañu mo wax ne al muhdasaatu min al umuri darbani wax ne te wax ji ma lay wax boo demee boo demee ci manaq bu saafee da nga ko ci fekk ci ci ci bi nga xam ne ni bay bay xeq moo moo moo ko def saafee na wax ne radianu al muhdasaatu min al umuri darban ahaduhuma ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهي البدعة الضلال فهي البدعة الضلالة والثاني ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة رواه البيهقي في مناقب الشافعي من yiñ sos ci mbir yi ñaari xeet la benn mooy loo xam ne ñu ko sos mu wute alquran sunna wala asar wala ijma kooku mooy mbidaatu dala la bi ñaari mooy loo dañ ko sos mu doon lu baax wute nekkul ci kenn ci ne yooyu lu baax la loolu moom mu dasa la boo xam ne nekkul mas mu ci kon wax sa kay ba ta te loolu alxaafis ibnu ibn tudd tud nako ci fatil bari ba tey rawaa alxaafis ba ta ci masabu Shaafi'i alxaafis abu nuaym fi kitab xulyatul awliya ci remi xulyatul awliya jeul ibrahim ibn junayd mu ne حدثنا حرملة ابن يحيى قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول البدعة بدعتان بدعة محمودة وبدعة مذمومة فما وافق السنة فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان نعمة البدعة هي loolu فلر كون من من ne إبراهيم بن dégg من حرملة Ibrahima يحيى من نتلي من xar محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه بدعة dégg بدعة biddaa bu ñu sant ak biddaa baa dañ ko ŋàññi lu ci wuteeg sunna lu ci dëppoog sunna lu ñu sant la lu ci wuteeg sunna lu ñu ŋàññi la euh, daal di indee nag waxi Omar jooju bu ñu demee ci Abu Hamid Din al-Ghazali ci ta wax yawlum din wax jooju lay wax boo demee ci al-Izz ibn Abdi Abdusalaam fii kitaab yi xabaay bi ahkaam wax jooju lay wax al-bidaatu munqasimatun ila waajibatin wa muharramatin wa mandubatin wa makruhatin wa mubaahatin summa qaala wa tariqu fi dalik an tuarada al bidaa ala qawaidi فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فهي محرمة أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروها أو المباح مباحة kon lu ci dugg ci yooyu rek bu fekkee day dugg ci xawaayid ijaab day nekk lu war su fekkee day dugg ci xawaayidu tahrim day nekk lu araam bu duggee ci xawaayidu nadd day nekk maddoom manduuba bu nekk duggee ci xawaayidu makruh dafay nekk makruha bu duggee ci xawaayidu mubaax dafay nekk mubaaxa lii waxi abdu ibnu maanaam ci ci waxi al Izz ibnu abdi abdusalaam bu ñu demee ci ba tey ad nawawi fi sharia ala sahih ala sahih muslim ci kullu bidaatin dalala mu ne hada amun maxsus wal muraad mooy gaalibul bidaa ay ahlul luga mooy li ñu wax mooy kullu cheyin ami umila ala gayri misalin sabiq loolu lay firi mooy loolu lañ koy jëf rek tam tam doon loo xam ne nii kenn mus ko def mu ne ulama yi ne dañoo wax ne al bidaatu xamsat aqsam waajiba wa manduba wa muharrama wa makruha wa muharrama wa makruhu mubaa fa min al waajibati bi nga xam ne bokk na ci misaal yi nga xam ne dafa nekk lu war mu ne bokk na ci misaal yi nga xam ne dafa nekk lu war mooy nazmu adillatil mutakallimin li raddi ala al mulahida al malahid wala wal mubtadiin maanaam andi ay adilla yoo xam ne dañ mutakallimin la dañ ko sos ngir mën a radd ñi nga xam ne dañoo génn yoon dañoo ay ñi nga xam ne ay mubtadi woon lañ waaw ak yu mel noonu bokk na ñi nga xam ne dañ ko sopp mu joxe ci misaal mooy tasnifu kutubil ilm ak bina al madaris ak ay ay ay daara ak yu dul yooyu bokk na yaa ngi ko daganal mooy at tabassut at tabassut fii aw fi alwaani ati moo xayri dalik bu dee xaraama makruh moom buñ xam la kon masala yi boo ko xoolee dëgg-dëgg masala mii bi adillati al mabsuuta fii tahdibi al asma wal lugaat da nga ci fekk lu bare bari di tegtale nag xadis bu kon mina amil maxsus dafa am buñ koy wax dafa am luñ ci jublu luñ ciy dugg ak lu ciy génn waaw di caagi ne nag bu ne kullu kullu kullu day dugal lu ne léegi nga gis kullu goo xam ne am lu ci génnaale dañ ko taxsis bi day bi dalili tu dammiru kulla shay'in ndax dara du ci génn loolu xam nga ne mos kii wax war na xoolaat loolu euh, bu ko defee nag buñ demee ci alxaafis ibnu xajar asqalani fil fath ci ni amati ni amal bida fi baadi riwayat ni amatil bida ba te bi ziyaadati ta من والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشريف مقابل السنة فتكون مذمومة من كل نغاني والتحقيق بنجسو بنجسو بخوتنا إن إن كان مما تندرج تحت مستحسن في الشريف فهي حسنة وإن كان مما تندرج تحت مستقبع في الشريف فهي مستقبع وإلا فهي من قسم المباح وقد تنقل إلى الأحكام خمسة وأي فين دينك بن قسي بم لير سين باب كون تنكل ني مير تنكل ني لو خا دا فا نيك لو bu demee ci mazhab bi ci mujj mooy al mazhab al hanbali day bu demee al cheikh Shamsuddin Muhammad ibn Abi Fath al Baali al hanbali ci kitaab téeram bi ñëw al matla ala abwaab al qara ci kitaabu talaq wax ne wal bidaatu mimma umila ala gayri misalin sabiq gis seen wax yëpp daanaka lay duggante wal bidaatu bidaataani bidaatu hudan wa bidaatu dalaala mu ne wal bidaatu munqasimatun bi bi aqsaami ahkaami taklif al xamsa waaye ñi ay borom xam-xam lañ kenn du dàq seen waje umuman noonu rek ci biir leeral boobu sax ci lañ dugg bay leeral ne bay bay leeral ci biir leeral boobu di di di wane ne même sax ci cadre loolu buñ jëmee ci ruuxul bayaan fii tafsiril quran euh, mu leeral ci ne wa min taazimihi sallallahu alayhi wa sallam amalul mawlid maanaam li ñu tuddee gàmm ida lam yakun fihi munkaran waaw bu fekkee ne lu ñu lu bon nekku ca euh, bu fekkee lu bon nekku ca defuñ defuñ ca lu bon ci lool ci leer bu qala al imam asuyuti qaddas sirruhu mun yustahabu lana izharu shukri li mawlidihi alayhi salaam wa sopp nañ feeñal ak sant ci gane àddina yonent bi salaa sallam wa qad ittami'a inda al imam taqi bin sukki dajalon dajalof nañ ci imam ibn taqi sukki rahimahullah wa qad ittama'a inda al imam taqi bin sukki rahimahullah jamun kasirun min ulama'i asli borom bu bari ci ay ulama'u wu fa ansa fa ansa da munsil mu am ku juk dadi sad dadi wax وخي صرصري رحمه الله في ابن تقدير الوسام قليل لبرح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب وأن تنهض الأشراف عند سمائه قياما صفوفا أو, أو, أو, أو جثيا على الركب bam jege lolu ci la imam sakki ak mbolo ci ñim ando jokk lu jege nak ci barab ba xaw xumbu jotay bubu lolu di wane ne kon du loo xam ne nii luñ mën a teg nee la waaye am na bunt buñ ko dugal te lambatuwuñ teg ci loolu rek doy na sëkk ci ñu mën cee sukkandiku ba ne kon mbir mi duñ jëkki-jëkki mën koo sànni noonu ibnu xajar alxaytami wax ne innal bidaata alxasana muttafaqun ala naddiha bidaa xasana dëppoo nañ ci sopp ga wa amalul mawlid wa ijtimaau naasi lahu kadalik ay bidaatul xasana li ñu tuddee gàmm ak nit ñi dajaloo di ko def nee na bidaa xasana la waaw qaala saxawi lam yafaalhu ahadu min al quruni salaasa dëgg la kenn ci quruni salaasa defu ko woon wa innama hadasa baadu ginnaaw ba la sosu suma laa yazaalu ahlul islam min sairi aqar mboolem l'islam bépp di ko def ak mudun yu mag yi yaamaloona al maw al maw yi wa yatasaddaqoona ñu koy ñi ci sarafe ci guddi yi xeeti sarafe yëpp di itoo jàng kiraat mawlid yi sallallahu alayhi wa sallam di feeñal barkeb loolu dégg nga alayhim mu ne loolu moo moo wax ne kon loola dëgg la amutoon ci jamono njëkk waaye ginnaaw bi la ko aqtaar yu bari ci aqtaar islam di ko def di ci feeñal rek li nga xam ne mooy ngëneelu gane àdduna ak yonent bi salaa ak rëyaayu ak màggaayam bi nga xam ne am na ko ci ci ci ci ci monde islamique bi kon yii yëpp daal damay waaj a sonn na sëkk ñu mën ci sukkandiku ba ne kon ku ñëw bëgg daq dàq bi daane de su ko seet def ko ñaari xaaj la ngay indi lañ war a xool lu mu doon ndax ñii saxal lii kat ay cadre lañ ay boromi xam-xam la yoo xam du ñu n'importe qui su ko defee nag lii doy na ma sàddu ko saxal ci ci ci ci saxal ne biddaa bu rafet am na te gàmmu ci lay dugg te it ku ko dàq da ko dàqe par parloo ak ay boromi xam yoo sukkandiku waaye doo ko dàqe mukk xam-xam. waaw euh, Cheikh Mouhamed Lamine ñu ngi lay nuyu. waaw loolu ma jot a leeral noonu mooy li ma bëggoon a radd ci li nga wax ci ne biddaa bu rafet amut. Euh, ma wax leen la ñi ko wax du n'importe qui ay boromi xam-xam lañ yoo xam ne nii ci wax naa la ci même ci ay may yi xam ci lañ ñooy delluwaay euh, ci ci ci ahlu sunna wax naa la ca ñenn ci ñoom mu def nag li nga wax ne danga ay ay subahat yéene subahat yu nag bëgg naa nga taqyir ko bul wax ne rek subaha la neen subaha la inda suyuxina wa inda man atamidu alayhim wa inda man naatamidu alayhim subaha la ci ñoom subahat nangam subahat nangam suba neel na kon ñoom subaha la comme ni ñu la ko jàngal ak ni ñu ko dégg ak ni ñu ko jàppee yow waaye bul ko taamim bul ne subaha la mën na am ma xat takoon subahat na indakum waa xat yakunu fusan indana wa nuuran wa hidaya kon man koo jàppee lënt fekk am am am lënt la eh, ci nga xam ne ndax ñi ngi koy leeral lépp da nga koy leeral bi wu jeexit nasarika ak ni ñu ko sax école jàngale kon mën na nekk subaha ci yow waaye bul ne subaha la ngay tax da ngay bul ko taamim dee ko dee ko taq it ci niñ ko gisee ñun subaha la loolu moo gën a ansab moo gën a aswab xëy na da nga ñëwaat bu ma euh, feexee diglu diglu diglu li nga wax wala incha allah dama ci mën a xam ci leer ma leer mu jël turu audio yi maa ngi ciy déglu la ndax damaa ko woon sonn moo tax bismillah